waral dëgg dëgg yàlla ñoom maa ngi masawu ci Sénégal yëpp ñu mbënd mi fitnaal teg leen ay nattu waaye maa ngi ñaax samay askan ak population Kaffrine ci ñuy continuer way continuer am dignité te suñu xel gën dal ndax politique reen bi soo ko rombee mu radd la war nga xam ne ah kii kat caaxaanul te li ma bëgg a wax mooy président Macky Sall mën naa wax ne wala dëppal dëggal du caaxaan ci xeex mbënd mi ndax gis nañu li muy def te toogal saxal baabu sunu la moom boo ko dégg rek ku euh, waaye di moo koy di moo koy wax te gis nañu ne euh, lii mu tàmbali tey balaa directeur de la ONAS di ñëw gis ngeen liggéey bi ñëpp seet nañ ko am nañu soo ñu foogoon ne dafa doyul mais liggéey bi ñuy def nii euh, jotagul a dara ak pexe bi amoon en 2017 muy système de pompage ak canalisation yu bari mais canalisation dañ koy dindi dañ indi leen canal yoo xam ne bu ngeen demoon ba xool ko canal yooyu nit mën na ci dugg raam ba bu bëggut nit mën na ci dugg raam bu bëggut canalisation yooyu su ñu ko defee fii nii ah am naa yaakaar ne wàqi canalisation kii bi station euh, euh, de euh, pavimentation bi muy exutoire bi protéger ko mairie bi yëpp engagement di ko surveiller ah. dafa naa ne bu déwénee sax du ngeen wax loolu

loolu nag ci jamono bi nga xam ne gouvernement def na débat de réduction budgétaire à l'Assemblée nationale ñu ngi dajale soxla yi ak bëgg-bëgg yi ci plan de relance bii gouvernement bi def budget deux mille vingt et un bii ñu ngi ñaan président de la république mu ñoŋal liggéeyam ci Kaffrine ko mooy ñi am assainissement eau fluviale ak assainissement eau usée su boobaa. yëpp gën gën a dina gën a ñoom pour loolu nag gannaaw plan bi existe na li des mooy koppar moom mi natt nag di arbitre rek ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy saraxtu ñu ngi dagaan moom la nit di waxee kilifaam moom la nit di waxee kilifaam ñu ngi koy saraxtu ñu ngi koy ñaan mu nattal ONAS